mu réer dibeer bi la ñu weesu kenn xamul ci lu mu nekk ak fa ko jant bay tiim moom moomee di Ibrahima Seck di frère ci kile di Talla Mbengue DHL borom këru ba Kati Chimère Diaw tax na ay jegeñaaleem tas na taalam boole ko ay numéro téléphone ngir rek mën a gisaat seen doom joojee gannaaw ba leen njàkkare tàmbalee gane si ak rek nu dëkk bi tëddee bés yu mujj yi talaata bi la ñu weesu sax benn jege ñaaleem yónnee nañu xibaar bi ngir rek ñu daal koy wasaare ba ñëpp jot si ngir ñu mën a gisaat kile di Ibrahima Seck si talaata ji la weesu la xamaloon ni barki démb ci ay rek 5 heures du matin la ñu gëjee xam si lu mu nekk otoom ak téléphone lañu la daal di gis ca plage Jàmmalaay waaye moom gisuñu ko fenn. naka noonu ne eh, la ne rek jàpp leen si eh, ngir ñu gisaat ko ndax boobu ba tey nekkuma si jàmm eh, sama frère bu suri si man la. boobaak tey nag ñoo ngi gis nataalam ñu koy wasaare fu ne ngir gisaat ko moom moomee waaye nag tey jile ci gaaw gi la ñu xëy euh, jot ab xibaar ni Ibrahima Seck moomee di frère euh, kile di taal Talla Mbengue DHL euh, daal dinañu koy gisaat gannaaw bu mu disparaître lu ëpp juróomi fan waaye nag anam ba ñu ko gisee neexul ay mbokkam ndaxte dañu ko fekk mu ñàkk bakkanam di xibaar bu tiis lool te nakari si ñoom ñooñee ana nag si yan anam la amaguñ si benn xibaar ndax ñi nga xamante ni ñoo di ay jegeñaaleem yëkkee guñu benn kàddu ci li ni mel ñëwaat ak yéen si na mu gën a yaatoo ñu ngi leen di mastaw bu baax a baax ñoom ay jege ñaaleem waaye itam di mastaw frère am bile di Talla Mbengue a di boroom këru ba Kati Chimère Diaw